dégg nga affaire poste yow selon yow euh, responsabilité bi ñi ñu fa ñi ñu fa nommé la les directeurs généraux ou bien le chef de l'État ndax ñu ngi koy wax léegi Ibrahima mais jusqu'à présent moom dafa déculpabiliser daal le chef de l'État waaw yaakaar naa ne euh, am na ci lenn loo xamante ni ñun ñëpp d'accord nañ si mhm. mooy que euh, bu doon làmb du ñu ne poste dafa def trois appuis dañ naan dafa daanu ba juutu donc fay itam je pense que ñu ñëpp d'accord nañ ci mhm. léegi lan mooy euh, euh, cause bi je pense que loolu moo euh, ëpp solo ak lan la ñuy def ba génn ji pour xam cause yi dañuy dellu rek ci discours bu président Macky Sall def le 1er mai 2022 bi passé bu muy recevoir le les les syndicalistes mu ne la poste compte 5000 travailleurs que l'État ne peut pas tous payer il est impossible de sauver une telle entreprise qui doit à l'État la somme de 189 milliards. Nous ne pouvons pas payer tous ces travailleurs dont un grand nombre ne travaille pas. Mhm. mu ne doo un grand nombre ne travaille pas. le président Macky Sall moo wax loolu. waaw 5000 yi grand nombre bi liggéeyuñ. très bien. Mhm. Euh, mu am keneen ku waxaat tamit ci poste muy Ousmane Sonko. Mhm. mu ne aujourd'hui tous les secteurs de la commande de cette société sont entre les mains de parents du directeur. général sans compter les proches parents et barons du régime. Les surfacturations et les fausses commandes, c'est dans le rapport de l'OFNAC. Mhm. muy fàttali de ne nag audité woon nañu postu ba gis ne entreprise bi mauvaise gestion moo fa am te mauvaise gestion boobu ki nga xamante nii moo nekkoon directeur bi daf ko sax nëbbul nëbbu ko de mhm. mauvaise gestion boobu ki nga xamante ni moo nekkoon le directeur Siré Dia. Siré Dia gis nëbbu ko. le 4 mai 2017 je sais pas ndax Charles yor na ko ba léegi. archivé. mais. un communiqué boo xamante ne nii communiqué boo xamante ne nii en bi postu la mais li nekk ci biir yëpp waxi APR la. voilà mi ngi nii mu affiché d'ailleurs. très bien. Mhm. soo ko séenee da naan document poste la. Mhm. alors que liñ ciy wax ci biir yëpp waxu APR mais li gën a garaaw mooy xam nga les syndicalistes là dañuy reprocher Abdoulaye bi Baldé mauvaise gestion mais bi ja di nekk directeur poste di def di def ñaawteef bii mhm. kan moo nekkoon ministre de tutelle am Bibi Baldé Bibi Baldé mhm. donc quelque part da ngay noter amateurisme réel parce que yow bu nekkee kii moo nekk directeur Euh, benn post mhm. son patron nga jële ko foofu indi son patron foofu on s'attend à ce que au moins amélioration mais moom bu nekkee ne dafa gis te foofu le problème bi nekkee bu nekkee moom dafa gis en tant que ministre mhm. yow directeur ngay def nu la neex parce que au début post pour nga dugg fa concours nga daan jaar mhm. concours nga daan jaar Sénégal tey aujourd'hui moo nekk xanaa armée daal ngay gis loo xamante ne nii ay sénégalais ñoo koy gérer te du am sur effectif duñ fa dugal ñoo xamante ni waruñu faa dugg. l'armée tout simplement mais bu dul loolu ñii nii lu ñuy def mooy clientélisme politique maanaam soxla nga ay militants da ngay jël un peu partout léegi bu nekkee Bibi Baldé en tant que ministre gis na le directeur muy def loolu of nag def audit. Mhm. épinglé ko. Hmm? Mhm. bu nekkoon ne dañ ko sanctionné à la suite de ça. xëy na ki ko remplacer en cette direction la mais du def la même chose qu'est-ce qu'on a vu le président de la république dafa jëlee Siré Dia bi nga xamante ni moo saccagé poste yóbbu ko LONASE LONASE mais ki nga xamante ni moo ko remplacer bu ko neexee tamit mu def la même chose parce que day jàpp ne au lieu sanction négative di ko ci fekk mais dañ koy jox promotion te véritablement loolu la gis ne noonu la président de la république di doxalee. te Bibi Baldé mi ngi wax sax ne tous ces problèmes là c'est antérieur à lui ngi koy préciser d'ailleurs. mais euh, en en 2012 li ñu doon wax ne moom la yor en matière de dette mooy 4 milliards. Mm-hmm. te on nangam milliards. xoolal gab boobu. CDC yoreel na leen presque quinze milliards bu ma juumul. Mhm. waa caisse de dépôt et des consignations. très bien te en plus de ça xam nga état bi day toog mu créer ay pro ay ay projet te leer na ko ne financement bi day poser problème lu mu def pos ci affaire bourse familiale yi noonu la def beaucoup d'hôpitaux ci affaire euh, CMU bi maanaam da leen fay après ma rembourser leen remboursement bu dul ñëw jamais donc pour man. le premier responsable de cette situation là c'est le président de la République parce que moo nommé ay nit ah euh, ñoo xamante ni amuñu profil bu baax à ces postes la pour tout simplement ñooñu permettre ko mu gagner des villes parce que communiqué bi bi ko Siré Dia di génne mu ngi ci ay législatives yoo euh, élection locale yoo xam législative la woon 2017 yoo xamante ne nii <laughs> waa APR lu ñu doon wax mooy Idriss sec devait perdre à à Thiès donc pour que Idriss sec perde à on permet à Siré Dia de faire n'importe quoi c'est ce qui s'est passé léegi nag parce que privatisation bi ñuy wax ni nekkul état du Sénégal moo toog ñoom ñu xalaat ne pasukat mënatul a dem dañuy xool nuñ ci génne FMI moo ñëw tirer leen les oreilles mm-hmm. parce que les bailleurs de fonds du ñu nangu une entreprise boo xamante ni day employé cinq mille personnes te amul benn rendement soo koy def ñu lay ñuy taper sur la table donc c'est tey jii nii bu ñu toogee bay wax effet euh, comment comment dire restructuration de la poste mm-hmm. c'est parce que FMI moo leen ko demandé te Pape Matar lu mu wax noonu <laughs> kenn mënu ko dindi dañuy def le tout pour entreprise bi fay mais bu ñu koy restructurer waat di nga gis ñu dolli ci benn SA mm-hmm. aujourd'hui les sociétés sénégalaises yu bëri ay société nationales yu ci dolli SA boo xamante ni rien ne l'explique mm-hmm. léegi da ngay dem jëli ay actionnaires foo kenn xamul ñoo boole leen ci pour société boo xamante ni au départ c'était une société nationale parce que Sonatel dañ koy wax SONES dañ koy wax. Mhm. mais le contenu li nga xamante ni moo ci am essentiel. Orange koy gérer wala SDE wala CNO mhm. tout simplement ñi des ko kii vide la ñu yor. Mhm. alors même docteur Alpha mi koy wax léegi nee na il faudrait des hommes compétents et puis ñu ne ñu def euh, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais tey ji avec cette nouvelle nomination de Diaité on voit également que ni beneen politique encore moo ñëw ci poste. te yooyu yëpp c'est des postes politiques moom lañ koy décrier tout à di ko wax Ibra di ko bañ mais c'est toujours des postes politiques la yoo xamante ku ci dugg foog nga jàppale say nit. non c'est que xam nga euh, euh, Sénégal rek ngay gis ak yenn dëkk africain yi nga xamante ni moom la Trump doon wax les des pays de xawma nu mu ko tuddee ci woon noonu. Mm-hmm. ngay gis ñu fal la ngay fecc parce que bu ñu la falee responsabilité bu ñu la jox. Mm-hmm. xam nga yow koo xamante ni dañ ne entreprise bii nii. elle est en faillite yow ñu dénk la ko kooku nga war a am problème tiit jàpp ne kat man lii ñu ma jox ne est-ce que mission la boo xamante ne mun naa ko accomplir. Mhm. mais au contraire mais dernièrement lañ ñame kenn ci gouvernement bi mu ne dañ ñu daan sédd. léegi ñun ñooy séddale. docteur parce que dañu jàpp ne nomination yi. Mhm. ce n'est pas une mission mais. c'est une récompense c'est mhm. comme kii fi toogoon APR la dernière fois di wax ne président Macky defal na teraanga bu nekk Mimi Touré. parce que nommé na ko premier ministre mu nekk une mission moom mu jàpp ne teraanga la léegi yow boo arrivé à ce la nga jàpp ne teraanga la <laughs> mais da ngay noos ak seen waa kër sénégalais di gën a euh, nekk ci difficulté. <laughs> alors on va passer à Coly avant ñuy jàll ci deuxième euh, point bi juste par rapport ak euh, situation bi nga xamante ni tey jii lan ngeen di espérer de l'État et puis ak nomination de ce nouveau DG muy Diaité. Euh, merci Ramatoulaye j'avoue que nag euh, il des précisions à faire sur mm -hmm. certains points mhm. euh, Ndiaye def na ay recherche bu baax boo ko xoolee mhm. bien que sur certains points vraiment il a des erreurs sur la masse salariale et cetera mm -hmm. mais bon li may permettre rek peut-être ñu répondre un peu à certains points mooy propos yi nga xam ne le président de la République il l'avait tenu Euh, au mois de mai c'était pas le premier c'était le 3 exactement. Ah euh, parce que mai premier mai bi dafa tombé woon. Ah ak euh, voilà fête religieuse donc finalement le 3 mai la ko tenir devant les centrales syndicales. alors foofu lan la fa wax wax na ci effectif bi en parlant que c'est entre 4000 et 5000 sans donner de un chiffre précis mais effectif boobu boo fa taxawee. man biram je ne parle même pas.